ministre dafa am lu am ba des dama fi taxawoon ay at di wax jëlërlu si la jëlërlu si la defe naa ni ministère bi ñëpp xam nañ jëlër dëgg-dëgg mu nekk route bu am solo route boo xamante ne dëkk boo xamante ne dëkku Cheikh Ibra la maam Cheikh Ibra ndax fa la jëlee soxna soxna su baax suñu wax soxna Astou Sylla mu jur sëñ Modou Moustapha Fall ak Chérif Assane Fall monsieur le ministre Daouda Diallo boo fa yóbboo président président ni bu ma yàlla joxee réew mi dinaa ko defal monsieur le ministre bi ñu la nommé ministre des infrastructures keroog laa ni sama xel dal na nga ni ma incha allah ci kàttu yàlla daañu ko defal tey tali boobu àgg na ci ndigalu président de la république moo tax reen ci élection yi nit ñi dañuy voté ba nit ñi jeex ñu ni nañ génnee xar yi xar yi voté ngir kontaan franchement te lu mel noonu président daf ko def ci dëkk yu bari ma it sama bopp ngeen sagal ma sigil ma sama doole yokk na yokk goo xam ne ci département Louga ku mu man ci doon ku ma ko xëccool dama lay daal te yéen a ma jàppale may wax nag ni monsieur le ministre depuis cent 1960 lañu defoon demande yi pour bëgg tali mu ñu ko am ci seen nguur la sotte ma gis encore war ak ndoo ndooyeen nga xam ni problème la woon ngeen defar war ak Linguère yeen ngi ci PCB. Mbéjéen defar ngeen piste bi tey Louga bu ngeen ñëwee kër Thierno Bachir ba stade ba defar ngeen ko li ngeen defar suma ko lim monsieur ministre du jeex potu ciowo potu Dakar may wax nak ni ngeen xam ni département Louga kontaan nañ ci président de la République dafa am nak ben dëkk bu ñu wax Palen Fall monsieur ministre mi ci rapport six kilomètres la immigré yi def nañu premiers soins yi defar nañ ko latérite ba mu àgg ba bëgg ñu jàppaleñ ci tali boobu ak dëkk bu ñuy wax Touba Njàmbur foofu sa équipe bi ñëwoon nañ fa ñu vérifier natt daal di demaat may wax nag ni Macky Sall yàllaa ko rang te ku yàlla rang da ànd ak moom ndax dafa am lu sëñ Touba xalaatoon muy projet de société Serigne Touba ci ay jamono dafa xalat gis ni Touba fi la wara ag ci jamono tel décrire hôpitaux yi décrire autour yi muni ni sama jarbat dana ko def kon Macky Sall jarbat Serigne Touba la ndax le Serigne Touba ci projet de société bi Macky Sall defal nako muy autoroute Ila Touba mi ngi ci mi ngi ci bu muy wax mat la Matlabul Fawzayni dañ ko xool am na sama mbokku mbàkke mbàkke yi na ngeen xool ci xaside boobu la sëñ Tuubaa waxoon Macky Sall moo ko réalisé kon kooku ku yàlla rang da ànd ak moom xam nga yàlla bu sampee nga fel ko mu sampaat nga bëgg koo fel da lay booleeg yëpp sànni ci àll Macky moo fi nekk yàllaa ko def monsieur le kontaan nañ ci yéen Abdoulaye Daouda Diallo je suis très content waa jëleeru nee nañu bëgg nañ nga agsi fa franchement te fa ma it fa la dëkk Sénégal li muy yaatu yaatu jëleeru si rek laay moom moo war a nekk chef de village foofu lay ñibbi maay doon chef de village te danga ñoo sagal danga ñu sigil nee nañu léegi ñoom bu ñu gisee rang-rang dañoo ñëw dañoo ñëw biir Louga te tali bi ni ñu ko defaree genn wàllu bu ne saaku sima nii lañ ko def ba tali bi àgg mais sag boobu ngeen ma sagal man bu ma tax fi waxuma ko du ma ko ma bëgg nag sama collègue yi kenn ku ci nekk la def sa dëkk na ko wax ba pare laajaat tekki je vous remercie.